ban gis-gis wala ban sentiment nga am démb li nga xamante ni moom moo xew foofee ca arena bon gis-gis buñ ci am ak euh, sentiment bu ñu ressentir sentiment de fierté la euh, ndax déjà li amoon solo mooy retrouvaille la euh, retrouvaille wu famille patriotique yëpp ndax ñun Pastef famille lañu mais lu tax ñu am ci sentiment de fierté Pastef bi ñu ñëwee ci langue politique ak léegi ñëpp xam nañ ne dañoo nekk ci révolutionné waat façon de faire politique bu Sénégal wala boog ni nga xam ne daan nañ ko doxalee ci langum politique ñu xamoon ko de 1960 à nos jours ci Sénégal ak ci Afrique ñëpp xam nañ ne dañoo indiwaat beneen xar kanam bu bees li ko gën a firnde mooy woote démb bi c'est une première dans l'histoire politique africaine ñu woote meeting boo xam ne dafa am euh, entrée tàmbale ci un million ba ci mille francs loolu nag euh, dañuy nekk guléet la fii ci Sénégal waaye guléet la ci Afrique ndokk nag bi ñu amee ku mel ni le président Ousmane Sonko nga xamante ne euh, génération bu nekk dafay am koo xamante ne mën nañ ko tuddee un messi Ousmane Sonko dafa bokk ci ñooñu histoire politique Sénégal mu ngi soog a ku mel ni Ousmane Sonko waaye nag bésu démb bi dañ ci wanewaat bu bëree bëri wanewaat taxawaay bi nga xamante ne la population am nañ ko seen digganteek le président Sonko confiance bi nga xamante ne joxoon nañ ko ko mu tàmbali de 2014 à nos jours muy dix ans de combat yoo xamante ne mëne nañ ko ñu dund ci lu ne tolof tolof yu ne waaye ki ki nga xam ne dafa nekk ci opposition woote ay levée de fonds mën a dajale trois cent million tey ñu yor nguur lii wane ne xar kanamu politique bi ñu ngi koy am na fu ñu koy jëlee ak fu ñu koy yóbbu yor nguur de lenn lañ ci xamoon mooy euh, da ngay toog nekk euh, partisan alimentaire ñu baal ma ci kàddu kàddu boobu parti bi mooy def ci yow su wootee meeting loué ay car jël ay nit jox leen deux mille ñii cinq mille ñu dajaloo ñëw def mbaboor bu rëy daal di ñibbiwaat par contre fii dafa am lu wuteeg yooyu yëpp le président Sonko bu mu woowee wootee dafa am challenge bu mu ñu lancé ñun les patriotes ne kenn ku nekk sooy ñëw da nga indaale 1000 francs pour participer ko ci suñu campagne. d'accord donc pari boobu ñu réussir ko. lenn daal li ñuy wax. Mhm. mooy ku mën na def. ku mën na def euh, euh, Abdoulaye Ndiaye mu doon loo xamante ni démb gis nañ nit ña fa ñëw mu doon tamit meeting boo xamante ni paas la pour dugg déjà ban jàngat nga am ci loolu tiitalu leen yéen opposants yi. non man demu Ousmane Sonko démb foofu du ma def problème parce que ku xam parti politique xam ne parti politique am na militant stade boobu la koy feesal Ousmane Sonko am na militant yu ëpp lool parce que dem ci élection am 2 millions et quelques 54 pour cent boo wootoo à mois des élections war nga mën a amaat. mbooloo bu toll noonu parce que même bu décoration amee ñi découragé ñi découragé dina am lépp loolu waaye dafa am lu am solo ci nekk. Mm. bi ñu fiy jógee fi Ousmane Sonko ko demoon fa intéressé wuñu de xam lu ñu intéressé mooy bu fekkonte ne fi nekkoon liggéeyuñu Ousmane Sonko bu bëggee wootee stade amitié bi ñuy réflexionné waat lay demaat wala mu dem stade Demba Diop bi nga xam nañ ko di ko tabaxaat mais malheureusement que ba Ousmane Sonko lépp lu muy def centre Abdou Diouf def ay communité jam ñaajo yu extraordinaire ba Ousmane Sonko mën na ñëw déroulé fa la mu fa bëgg a la toogoon na fii ci Sénégal ne infrastructure yi ñu def da infrastructure yu baax amul njariñ infrastructure yooyu baax amul njariñ moom la Ousmane Sonko dem démb di fa defee cérémonie boobu yàlla dimbali ñu nag ba liggéeyu président Macky Sall tax ki doon jógee Matam man fa laa jóge démb bu ñu jógee maatam dañoo fajaru ñëw fekkee si bis ba parce que Matam Dakar léegi yaa ngi ko doon def euh, à douze quatorze heures léegi yaa ngi koy def cinq heures de loolu lan moo ko indi mooy président Macky Sall defar na diggante il a dak jëm ñaajo boo fa ñëwee war a dem jëm ñaajo da ngay jël terre jëm ñaajo dem dem jëm ñaajo nga dem autoroute à bi ñëw jëm ñaajo nga defar autoroute normale ñu defal ko ay pont yu jaar ba nga xam ne mën nga accéder jëm ñaajo doo am problème président Macky Sall jëlal ko diggante jëm ñaajo fi muy nekk noonu ak mbuur da ngay jël autoroute à bi ñëw boo jógee Kaolack boo ñëwee Sandiara da ngay mën a jël autoroute à péage bi ñëw defal ko ñu jóge Thiès dañuy jóge cees jël autoroute à bi ñëw defal ko ñu jóge Touba dañuy xëy jël autoroute à bi ñëw léegi nag interconnexion boobu nga xam ne président Macky Sall def na ba Tambacounda Kédougou foofa doon jóge di fa ñëw boo bëggee accéder Dakar yaa ngi ko doon def 14 heures de temps maintenant mën nga ko def bu dee oto oto particulier yi mën nga ko def 5 de temps bu dee minibus yi mën nga ko def 7 heures de temps bu dee bis yi nga def ko 8 heures de temps malheureusement que malheureusement comme Ousmane Sonko ci wax la tollagul ak bàkku ak fëgg dënn ñun on on attend ça maanaam son après son mandat. d'accord parce que li ñuy xaar mooy liggéey ba jox Sénégalais Ousmane Sonko ba mu faloo 7 ans 7 mois rek la fi amul benn acte bu mu posé gun pour le développement du Sénégal bàkku wax. kon yéen le fait que mbooloo mi ñëw daal di fay dugg. loolu xam nga ñun lan moo ñu intéressé woon man démb laa ñibbisi bi koy romb maa ngi jóge ci àll bi. parce que dafa may sénégalais yu nekk ci ay jafe-jafe. ñun sénégalais yooyu nekk ci jafe moo ñu ñor ndax yi nekk ci yooyu ñun am na barrage bi moo moo moo moo fees ñu ubbi ko mu dugg ci ay kër ba indoon kër kër yooyu nekk ci ay jafe-jafe li ñu intéressé mooy ñoom seeni ministre mën nañoo dem grand Pastef mën nañoo dem Dakar Arena mais fekk nañ président Macky Sall tabax koo pare. mais bi seen délégation demee Matam fekk fa sinistré yi quatre ministre ci tefes gi lañ taxaw ci ndox mi ne ñoom duñ yéeg ci gaal bi seeti ji sinistré yi nekk ci biir Darou Maye bi. dem ba génn foofu di leen wéef li nga xam ne dañ leen ko yónnee ba tey seen bët tegul ci jafe-jafe yi. ñenn ñoo def loolu. waaw parce man bi ma demee ministre de l'intérieur bu pa bii ga gi mu waroon a yéeg laa wax nga xam ne sapeur pompier ñoo ko indi daf maa fekk bi ma ko gisee man fan lañu war a yéegee ñun dem gaal gi bi muy ñëw damaa dem taxaw filmer ko mu gaal gi wàcc ñu installé ko mu dugg ci biir ndox mi ma filmer ko zoom mu ñëw ñu teg gaal gi ma taxaw fa ministre bi dafa révisé ñëw yéeg ci gaal gi dem seeti sinistre yi ma filmé waat gaal gi bi ñu koy yeb di ñëw bu ma paree émission bi dama koy seede ci ginnaaw parce que man maa ngi doog a ñëw wax bu nekk day am preuve d'accord wax bu nekk day jël gaal gi traversé ko 9 kilomètres bu ñu dem jox leen 10 tonnes de ciment 10 tonnes de ak ay paquetu 5 jàppale famille sinistré yi ci loo xam dañ koy téye noonu lañ ko toppee ba 26 dëkk yi ne ci département Matam yëpp jeex dama ne rek ñoom ñoo tal foo ak caaxaan bi Touba inondé taxul Ousmane Sonko génnee téléthon pour jàppale waa Touba ministre ba mu fa njëkkee dem tey jii au moment que Bakel ñu ngi am problème jéemuñu ci dara xam nga ñoom acte 1 la ñu njëkk a ne non acte bi Touba amee bi Touba bi Touba inondé seen ministre de assainissement loolu moo fa dem lam fa génne yëpp matul 2 millions Barthélémy Dias dem jël ñaari machine indi yóbbuwaat fa 4 machines na ca kan kan xam nga démancé bi dama lay wax nit ñi démancé ñoom 8 millions wala 8 ah, milliards joxe nañ ko gis nga 8 milliards wax nañ ne daañ joxe 8 milliards d'accord wax nañ dama ne wax nañ ne daañ joxe 8 dama ne la acte bi ñuy def li ñuy def moo la njiitum réew dul def mm. dama ne Touba dañoo dem yóbbuwuñ ñu mat 2 millions d'accord Barthélémy Dias def action ñu topp Barthélémy maatam dañoo dem di joxe ay famille soixante-quinze mille Farba Ngom coordonnateur départemental ba jaaraat ci ginnaaw def loo xam ne askan saafara ñu gartandi ko jomaay doog a toog ak Sonko ne dañuy génne huit milliards bu ñu nekk sinistre yóbbuñu fa dara jomaay ci avion la nekk nekk ci kaw fekk yuñ sinistre seen jafe-jafe benn seen responsable bu yëg ci gaal di dugg ci jafe-jafe yi fii euh, ne gis dañ koy Youssou Ndour 25000 la doon laaj daa fees ñoom 1000 lañ doon laaj Youssou Ndour 25000 laaj daa fees. bañ dañ doon laaj